on l'espère. Ouais. nañ ko bu baax a baax. incha allah dalal ak jàmm alors Alioune l'actualité qui tourne justement autour euh, du rapport bi nga xamante ni li nga xamante ni waxtaanee nañ ko ci dialogue bi dañ ko tënk ci ab rapport jébbal ko ki nga xamante ni moo di président Macky Sall waaye actualité bi itam euh, mu ngi euh, tourner autour de cette euh, loi d'amnistie bu nga xamante ni jur na polémique bu baax a baax déjà lan mooy ci sa sa par rapport ak loolu. merci beaucoup Euh, c'est un réel plaisir encore une fois euh, lu may leen wax sànq lu may wax <coughs> askan Sénégal mooy di man j'ai jamais été d'accord avec le dialogue ça je l'ai dit dès balaa ñuy dugg au fond la forme j'ai jamais été d'accord pour le dialogue mais comme sax dialogue dem na ba am li nga xamante ni tënk nañ ko ñoom euh, seen bureau politique bi ci sais pas quoi kuréel boobu noonu je sais Euh, li ñu tënk foofu noonu mettre également à la disposition également du conseil constitutionnel ça aurait été moi euh, je pense que ça ne devrait même pas être le cas parce que le Sénégal nous sommes vraiment nous ne sommes pas seulement seuls parce que boo xoolee chaque fois landerneau politique chaque fois ñoom ñooy décider à la place de la majorité le conseil constitutionnel a sorti un communiqué convoquant le code électoral le 25 février donc Macky abroger le le communiqué boobu noonu en annulant également cela. par un décret. voilà par un décret. donc si le propos le conseil ne peut pas. non Macky Sall moom moo génne décision après mu abrogé. mu a fait comme tu l'as conseil constitutionnel moom moo décision. non non Macky Sall moo. ah conseil constitutionnel ah, ah ah. allez-y ok comprenez. ah non merci merci. voilà donc c'est par rapport à ça que je vais dire donc moi suis pas d'accord par rapport à ça euh, surtout la loi d'amnistie bu nga xamante ni jébal nañ ko euh, askan Sénégal walla à la conseil constitutionnel parce que la loi d'amnistie quand vous le voir euh, au fond la dem d'amnistie pour qui kan la ñuy amnistie kii. on amnistie des de non des ay nit. non ce que j'ai dit des faits nga xam jot na fi xew. non c'est-à-dire ci xew ci diggante diggante ça ne fait même pas six mois je sais pas six mois ou sept mois diggante bu ñu amnistier. xalifa Ababacar Sall et le prix comment déjà Karim Meïssa Wade ça ne fait pas six mois diggante boobu noonu donc intervalle boobu noonu on joue avec les Sénégalais selon nos sentiments ou par rapport à quoi ñu nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci manifestation yi pourquoi pas justice ñu nga xamante ne agressé na lañ ñu nga xamante ils ont perdu leur bien y a pas mal de faits yoo xamante ni jot na am ci diggante bii nii pour amnistie am n à fin amnistie pourquoi moi je pense que amnistie boobu noonu Macky da ko def pour ay ñoñam wala da ko def également juste au moins ñu ngi xam ñoom lay àndal pour jéem leen couvrir moi je pense que aujourd'hui pour le respect des Sénégalais ou également pour le respect également ñu nga xamante ne les lañ pour le respect également à leur âme je pense que vraiment la loi d'amnistie n'a pas raison d'être ça c'est mm. position personnelle Ah, je l'ai dit waaw ah, ça concerne personnellement mhm. sama position personnelle mooy laa dem ne si boobu noonu amatul waratul am ce que je conseille également au président de la République Macky Sall mu convoquer également le corps électoral dans les plus brefs délais également élection mën a am soit euh, mu convoquer avant le 2 avril